aousubillah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu ci barab bu tedd bi ñu nekk muy jumaay Touba fii ci jullikaayu ayit bi ci benn fan ci weeru sowaal ñuy célébrer feetu korité ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am li tarixatil muridiya ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ni ngeen ko xamee nag GMT TV ak télévision yi li muy lëkkaloon lu mel na Lamp Fall TV ñoo am mbégte nag di fexe ba mbooleem li nga xam ne mooy xew-xew yi xew ci jullikaay bi ñu leen koy won en direct euh, ci fii ci Touba. Euh, julli gi nag niñ ko xamee Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am di tarixatil Mouridiya moo ko fas yéenee teewe waaye nag sëriñ Serigne Fadul Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir. mi nga xamante ni mooy diriger julli gi def xutba bi bu noppee jox kaddu gi sëriñ bi mu joxe ay kaddu yu waaye incha allah li tàmbalee ci mise en place bi muy dalal kilifa yi yi nga xamante ni ñoo fii ñëw muy ay kilifay diine ay kilifay aada ak mbooloo yi nga xamante ni ñoo jóge ci dëkk bi di ñëw ci barab bu tedd bii di fi jullee si feet korite bi dara du leen ci umpu incha allah di ngeen gis peese di ngeen gis njàngum xasida mi ñu fiy def waaye di ngeen gis itam duggub kilifa yooyu ak interview yi nga xamante ne nii danañ ko def incha allah ci bu ñu jullee ba sëlmal kon bu leen takkalikoo ak ñun incha allah lépp dina leer di ngeen ko gis fii ci GMT TV dara du leen ci ump kon jërë ngeen jëf ba ci kanam. daaxilaamiya ilaa sukuuri man saxara lil xalq baqaayi saaman rabbiya maaliki xaliili wal habib waxat maa niya daaya tabib. dañ ko daa junjoo rek jéem a xam sëriñ bi te dinañ ko dund. jéem a xam sëriñ bi jéem koo dund sëriñ bi nu koo xam ci loolu nag am xaw xaw su wajhi suñ lépp jëmale ko yàlla xas wajhi laa nag mënut am ci lu dul dëddu adduna dëddu adduna bu ñu ko dee wax du ñàkk lekk ñàkk a naan ñàkk denc du ñàkk a dëkk dadu àdduna fam la mu sa sa gën a gàtt mu ngi da ngay jublu yàlla te dara àdduna du la saf bu loolu amee nga daldi di nag eh, nekkal sëriñ bi yittewoo ko jéem a xam aw doxinam mën noo sëriñ bi mën nu koo liggéey lu lu am xas wa la te def ko muy suñu yitte di ko di ko jàng di jàng doxinam di ko jéem a xam di jàng doxinam loolu sëriñ bi moom raw nam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko wane na aw doxinam itam Ah, mën nañ caa xamee lañ ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam yi mu nekkal ci boroomam di won jaam ñi niñ war a jaamoo suñ boroom tum kem kàttan loolu kon loolu moo nu ci bàyyi moo nu ci war a bàyyi eh, sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi rek waaye borom ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaamee suñ borom loolu nag dara da ci loon jiitu xasu wajhi la jublu jublu borom ñu jul jul ko suñ lépp wan gannaaw lu dul moom beddu àdduna te daal yi àdduna bañ noo saf nekk ci nag nekk ci ni mu gën a la bi nekk ci ni mu lim fi lim bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di lim la fi bàyyi lim fi bàyyil suñ lépp jëmale ko suñu waroom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci jaamu yàlla ci sunu sunant bi sax dàkk ci jaamu yàlla ci joxe suñ lépp daray adduna bañ noo saf loolu lim ñuy indil du ñu taal dara lu suñ boroom ak àllaaxira ka nu jëm du suñ taal adduna du ñu taal suñ bopp du ñu taal adduna waaye nag ni li tax suñ boroom tànn sëriñ bi moo nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci jëwoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën a nan ko mën a liggéeyee ci li mu fi bàyyil mu sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag. na ko suñu borom diglee suma kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañ mën a liggéeyal sëriñ bi mën ko mën a sant itam kon nañu góorgóorlu bu baax a baax da dara waru fi waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du duñu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw duñu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil man moom moo niy defar suñ lépp moo niy sàmm ci wàll yépp bi ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dakk bu nu saxee dàkk ci li ñu fi sëriñ bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wétal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi diggam ak diggam te nekk ci li mu nekk loo bu nu ko defee war waruñu tiit dara duñ jaaxle ci dara duñ ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo góor góor bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bi bëgg ci noonu nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm boroom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci góor luñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg suñu bopp ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna lu luñ ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàllu googu tënk-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek moo ñu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li muy indil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la moo moo moo ñu ci moo ñu ci dikkal kon noo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane nun ñëpp nu balonte ak bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu amee dootoo tal dara loolu yàlla ak alaxira ku tëlul ku tëlul ku dara nag loolu yàlla ak alaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama moroom jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jëfe ga loolu noonu rek la deme nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci suñu lépp nag suñu ci yiw adduna suñu yiwu adduna ak si yiwu alax suñu yiwu ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ne yëmul fenn ndax bu nu suñu borom booleeg sëñ bi rek booba suñ ajo mel na ni suñu aj booba la ajo fajo ndax euh, sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit dafa mënut a ñàkk nekk nekk ci dara kon nu nekk ci jaamu yàlla hmm? liggéeyale ko sëriñ bi ndax noonu la bëgg ci noonu bu ñu ko defee rek suñ lépp yéwén jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay yéen weesu ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax taxawaay mat na rafet na jub na loolu lépp tawfeex ju ñu am rek moo na ko may muy tawfeex sëriñ bi sëriñ bi tawfeexi boroomam la kon tawfeexam mu ni ma ci lépp loolu kon sant yàlla rek moo nu war ak nag jéem a nekk ci loo xam ne kenn ko mën a sante kenn ko mën a liggéey la jërë ngeen

góorgóorlu bu baax ci muuri koor yi ndax yitte juréy la ñu ànd koor gi kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kàttan